bismillahi rahmaani rahim salaamaaleykum wa rahmatullah waa KR maa ngi di nuyu leen ziar abo maa ngi lay ziar bu baax Pape Diène du coordonnateur Diender production avant loolu aboo sax damay nuyu nuyoo ba pare waaw di sant suma sëriñ sëriñ Jili Mbàkke maa nuyu bu baax di nuyu képp koo xamante ni ku sant jenn la ak waa Njaxateen maa leen nuyu bu baax di nuyu suma yaay ak suma papa meen gën a suma yaay maa leen nuyu bu baax a baax a baax a baax waaw abo bon Diender production taxawal na journée boo xamante ni journée bu am solo la moi le 23 juillet te Sénégal ñëpp di ko xaar Sénégal ñëpp di ko waxtaanee te Diender production bu ñëwee ñëwul pour def loo xamante lu ndaw la quoi lu mag la def moo 10 combats la taxawal te xam ku xool làmb xam ne fan yii yëpp ñi tëgg ay combat ay 7 la ñuy taxawal ay 6 la ñu ñooy ci journée bi mais ñun 10 journée lañ taxawal te combat yooyu yëpp mën naa 6 grand combat, 6 combats yi njëkk yi yi mujj yëpp ay grand combat la mu doon lu jafe ñu taxawal 10 combats combat phare bi nekk jamtéer ak Ahmed Deme loolu rek doyoon na grand combat ñu teg ci baaba jaxal caatu ngéwél te ku xam combat boobu xam ne ñetti at ngi nii ñu koy jéem a taxal mais mënul nekk kon bu ko jëndeer ñëw taxawee kon c'est à féliciter te combat boobu Gaston def na lu ci nekk mu taxaw mais yàlla dogal na ci loxo jëndeer production moom la taxawee jëndeer baaba jaxal caatu ngéwél rek rek rek rek doyoon na grand combat ñu ngi ci tegaat benn combat muy sëtu falang sëtu fal ak Malick ñaar numéro boobu mooy drapeau Alassane Ndoye te ku xam Alassane Ndoye xam ne kenn dootu ko présenté ba tax na Malick Niang moom nga xam moom lañ borog sudu falang boobu drapeau bi sax do njëkk na tax ni moom maanaam tey wax ak moom du jafe ndax kenn ku ci nekk Sénégal bëggoon nga bëri tey ji drapeau Alassane Ndoye ndax Alassane Ndoye li muy représenté ci gox bi la waaw ñu tegaat ci Farouz ak Cargo Farouz ku ko xam mu ngi nekk équipe Lansar te Lansar kenn dootu ko présenté avec Max Mbargane waaw Farouz képp kuy làmb képp koo xamante ni amateur làmb nga boo suivre làmb di nga xamante ni Fourouz def na fi ay jaloo ci ci ci ci ci làmb ji te Fourouz Fourouz moom ak Cargo ku leen boole woon rek loolu grand combat la mën nga bañ a def yeneen combat yi nga xamante ni ñoo ci des Fourouz moom ñu ngi koy boole Cargo bu Malika écurie Malika la nekk boo xam Cargo xam ni def na fi ay jaloore moom tamit yu rëy fils de Samba Diaw wax fils de Samba Diaw boobu dañuy taxaw tuuti ci fils fils de Samba Diaw ndax fils de mooy tëdd fiiru boo jaxaaw te boo jaxaw fu mu toll nii daanaka boo demee région de Thiès boo nee Modou Anta bu Thiès euh, boo jaxaw nga ci teg te fils de Samba Diop mooy tëdd fiilu boo jaxaw fils de Samba Diop mi ngi ta mu ngi leen teg bu sën maanaam fi mu dëkk ci kii arène nationale bi maanaam mi ngi mel ni fii ak boo jegee tali bi ci gendarmerie bi xam nga ne kooku day mobiliser. fils de Samba Diop ak bu sën de loolu rek grand combat la moom tamit Sa Thiès bu Kër Malal Sa Thiès bu Kër Malal dañuy defaat jàngat bu mag ci moom parce que suñu journée bi nga xamante ni moom lañ tëggoon fii Bayaax moom moo nekkoon te waroon bëri grand combat bi yàlla dogal na moom jotutoon a bëri ak grand grand parce que combat ci septième ci septième combat yi ci la ci la ci la làmb toj ak conséquences yi nga xamante ni moom moo ci nekk ñu delloowaat mba mbattu si ndaa la ne yow Sa Thiès bu Kër Malal ak mobilisation bi nga xamanteni mom nga indi bayax tay ji c'est normal parce que def na 5 combats 5 victoires c'est normal ñu indi la Dakar ndax fofu awu dama ci taxawat bu baax a baax ndax manam tay Diender production li tax mu jóg manam plus particulièrement dafa jóg pour jàppale doomu wa Diender ak région de Thiès bi booy xol tay journée bi ni 6 lutteurs yo xamanteni nii ci région de Thiès bi lañ bok 6 6 lutteurs yo xam ci région de Thiès bi Diam téré mo nek tête de tête de ay eh, fils de Samba Diaw ñooñu ñëpp te loolu mosul am si lamba ah. moo tax comme par exemple ni mu lu ma la ko mën waxee président bi ni mu ko waxee Abdoulaye Diakhaté maire yi nga xamante nii ñoom ñoo nekk fii au niveau de Diender dañoo war a teg seen loxo ci Diender Production Events ndax booy xool sport dafa nekk benn wàll ci li nga xamante ni moom la dénk maire yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk kon bu seen doomi dëkk jug pour jàppale leen ci loolee ñu nekk waruñu ko seetaan parce que dafa am lu bëri loo xamante ne nii dafa manqué parce que maa ngi doon géej waaye a xam naa réalité yi nga xamante ñoo fa nekk mais bi ma tugg soo fii ci jandeer dafa am yu bëri yoo xam ne dafa manqué biir jandeer te loolu manqué bi gendeer jandeer am amuñu visibilité bu leen wanee moo tax loolu amu fii parce que tey jii benn exemple danga laa ci jël boo tey jii bu fekkoon da nga da nga da nga tawat boo xamante ni maanaam tey jii hôpitaux yi nga xamante ni ñoo nekk ci ci gox bi ñu ko saafara da ngay dem ba Thiès te loolu laa njëkk a seetloo parce que man milieu bu ma fa demee damay jàngat li nga xamante ni moo fa nekk et pourquoi pas ne ñoo nekk ci ñu coaliser boo xam ne day nekk niveau 2 wala niveau 3 boo xamante ni képp ku feebar au lieu dem ba Thiès nga fajoo fii te loolu nit ñi ak maire yi booloo moo koy waral loolu moo indi esprit gender production ne yi nga xam ne ñoo fi nekk pourquoi pas ñu dajal leen benn bés ci benn ngoon meeru Kër Moussa meeru Jandeer meeru Kayar te meeru Pout bëggoon nañu ko invité dama ne dem ma foofu mais dafa amoon voyage ci diggante bi loolu moo tax ñu invité lañ ci toog kon loolu bis bu réel te ñu ngi koy xaar xaw ma nag waa Kayar fa lañ ci toll mais xam ni Sénégal gi yëpp ñu ngi waxtaanee combat boobu jëm tiir Ahmed Deme ndax dafa am ay cause yoo xam ñoo fi nekk moo tax Sénégal jàmm rek moo fi war a am parce que euh, amoon na combat yoo xamante doxoon nañu ko ci diggéey boo doon xool Balla Gaye Euh, Gris Bordeaux dafa doon am ci mois de juillet bi mais mu a am mu a am parce que dañoo dàq combat yooyu Ama Baldé euh, Ama ak Modou Lo dafa waroon a am mais mujj mujjut a am parce que dañoo dàq combat yooyu ak asafurla Ama Baldé ak Gris Bordeaux dafa waroon am avant ñu ñuy tëgg mais dañoo dàq combat dafa am lu fa lu xew ci diggante bi comme mendum grand combat benn grand combat moo am ci mois de juillet moo jamteeri a dem ba keroog Malick Thiandou bi mu toogee teel loolu la njëkk benn grand combat moom moo fi am kon amateur ni ñu koy xaaree kon waa Kayar war nañu delluwaat ginnaaw xool bu baax parce que dafa am ay action yu bëri yoo xam dafay joué ci biir combat bi parce que damay seetlu télé bu ñu dem dañ naan yéen waa kër ab Ndoye yéen waa Kayar parce que dafa am manquement bu bëri boo xamante dafa des par rapport ak ñun lu ñu war a taxe waa Dakar ak waa ak waa Dakar kon nag lii nga xamante ni moom lañ def te abo ma di la wax maanaam ñun dugguñu pour si làmb pour ñëw rek taxaw ni rek delluwaat ñun foofu dañuy liggéey. parce que booy xool lamb bi budget bu méttee méttee budget bu mag a mag la su ma la waxoon tey ji budget bi da nga naan ñii tey ji fan lañ fal fal fa lañ fa lañ jaar budget bi day dépassé ay 25 millions di dem kon ñooñu caaxaanuñu dañuy liggéey kon nag ñun ñi nga xamante ni ñoo dëkk waa Kayar plus particulièrement ñi nga xam ñoo dëkk kër waa kër Abdou Ndoye il est temps ñu jóg bu ñu xool na mbir mi mbiru Abdoulaye Diakhaté moo nekk ci kaw wala Pape Diène rakam moo nekk ci non non après dépassé na parce que ku am boo xamante ni bu bu bu rek mooy mooy mooy xalaatee noonu parce que lii nii nga xamante ni moom lañ def néewuñu dañ ko def pour pour pour mu ram yam kër Abdou Ndoye wala Kayar rek parce que affaire bi c'est au niveau national ni nga xamante ni ñeneen dañuy jóge ci àll ba di ñëw di taxaw Guendel production noonu la waa Kayar ñëw war a taxawee Guendel production man li rafet lu baax seen liggéey amoo parce que lii mënu woon a ñàkk sama jarbaan nga yàgg na ñëw gisante xëy na peut-être miinante wu baax mais ku la laa ci liggéey bi nga xamante ni moom ngay def waaw ñu boole ceeg di def Modou Mbaye technique combat bu am solo mo senegal ñep di waxtane esamay ak pambay ikri Mor Faram la nek da nga bir biir bo la ci ikri Mor Faram kenn do la ko kenn do kenn do la ko parce que guy gi fa la nekk dafa def lu am solo ak jeri suñu jeri mo ndek Tiawan mo nek ikri Samba Diaw te lool rek grand combat la jeri Junior bi ak Papa ni mo do lool rek grand combat bu maga maga maga mag la ma di la wax Production c'est la première fois ci histoire du senegal nit am bes waaye nit am journée six grands combats combat six grands combats budget bu conséquent kon lool c'est à le président Abdoulaye la di plus particulièrement parce que 2000 francs 2000 francs francs bien amateur yi ñëw bien amateur yi 5000 ñun dañuy dem làmb journée bu nek manam euh, promoteur yi bu ñuy dem ay amateur yi 10 francs lay doon mais amateur yi 5000 lañ ko def loose ak VIP yi loose yëpp ñu bolé ko def ko 10 000 francs lolu lolu c'est à saluer. non lolu proposé nañu ko proposé nañu ko mais avec Abdoulaye Diakhaté mooy ñu jëk wax ni. maanaam comme que suñu premier journée la du normal ñu def pay-per-view parce que man dama gis ne sax man pay-per-view day rey làmb defarul làmb làmb parce que boo xool làmb fu mu nekk ci Sénégal maanaam euh, sport bi nga xamante ni moom na ñëpp di suivre fu mu toll nii moom la jeunes yi àndal mooy làmb fu toll nii làmb li mu mën mobiliser équipe nationale sax mën naa ne mënu ko mobiliser parce que boo xool équipe nationale tey jii da ngay jël 11 stars te fu mu fii deux grands lutteurs ngay jël Dame Diéry Ameth li ñu mën a mobiliser sport bu football mënu ko mobiliser mais nag boo jëlee loolu yëpp nga def ko pay-per-view kon pay-per-view fu mu doon gën a daganee sax mooy ñi nga xam ñoo nekk ci diaspora bi ñooñu mën nañ ko defal mais Sénégal bi jaru nga def per view te ni lay waxee pay-per-view dootul demee noonu amu benn temps contre ñoom nag dañuy def seen liggéey parce que waa ji jàng na la mu war a jàng ñëw def li mu war a def liggéey lay def comme ñëpp mais bu doon maa man bu doon làmb am naa ci lu may lu may lu may dogal comme jàkkaarloog Birata bi euh, président Bira Sène loolu sax du resooram mais pay vieux view moom dañ koy jël teg ko fële ndax dafay rey làmb ndax di nga tëgg grand combat bu mag buñ ko defee pay vieux view maanaam ampleur bi nga xamante moom la waroon am du ko am ñii dem estar rek mooy seetaani te làmb ñu gën a caaf de jaay ko ndox mi ñëpp xañ nañ ci la ci mbër yu mag yi moom ngay jël teg leen ñu wax seen wax mais buñ ñu sañoon tey fi mu toll vingt lutteurs yëpp dañuy ñëw mu nekk lu am solo lo xamanteni ni nee naa la le 23 juillet benn grand combat mo fi am mooy dem tir Ama dem yeen combat yeb dañ ko reculer ci ginnaaw. moom ku xam arène nationale mom mënoo fa euh, combat te am sécurité boobu mom sécurité mom lolu don lo xamanteni di di tic au la. mom bo ñé bo signé bo waxee comme combat rek mais nak sécurité bi ça dépend ci combat bi du tollu toll tax combat bi dum tollu gars yi jël nañu matuwaay yi nga xamante ni moo ci war yëpp yëpp yëpp pour mu am sécurité bu mat te ku xam ñaari grand grand grand combat lu ma wax sax ñaari grand combat yi laay wax six grand combat la mais ñaari affiche yu njëkk yi maa jam téeri amante ak Baba Jaxal Caatu Ngéwél ku leen xool seen parcours xam ne ñooñu mosuñu indi violence te seen supporter mosuñu indi violence man da jam téeri naa ko saan mais supporter bu daa nekk bu daanul violence dafa am amet dem la même chose te dañuy wax ni bi lébu la kon derby lébu nag ku xam ay lébu moom xam ne moom violence dafa am nit ñi dinañ ñëw seetaan ci jàmm ak salaam kenn ku si nekk ku lay yàlla may ndam ñu xam ne ku ko la yàlla may ndam ñëpp demaat ci ñoom teg di la wax nag mbëri nañ mobiliser bu baax a baax a baax te ku yéex du am place ndax combat yi nga xamante ni moom lañ tëggal ndax baaba jaxal caatu ngéwél bi rek daanaka tey jii bu grand combat bi deful attention ñoon dinañ leen muur lu leer naa la wax lu leer naa la wax jërëjëf jërëjëf jërëjëf waaw di profité waa léegi di nuyu Abdoulaye Diakhaté di nuyu Basir Sow di nuyu yow Abo sama jarbaat di nuyu Mansour bu baax a baax di sant suma sëriñ seen Jiiri Mbàkke di sëñ Cheikh Mbàkke Mbàkke Kajoor di sant jénneen yépp dinañ wax Diender production Diender production noonu seen Diender production la il temps nag ngeen jàppale ko teg ci loxo ndax mën dem ci kaw. jërëjëf waaw euh, Basirou Sow la euh, bokk si ñi nga xamante ne ñoo nekk si structure bi ñuy wax Diender production euh, di nuyu Abo Guèye di nuyu Mansour le cadreur di nuyu président Ablaye Diakhaté mu ñu àndal ak ki nga xamante ne mooy Pape Dieng waaw li ñu ciy wax rek bëriwul parce que li ñu waroon wax li ci bëri nag ñi ñu jiitu wax nañ ko. Euh, li ñuy wax rek mooy ci côté structure bi ndax président dafa taxawal lu rëy mais bi mu ko taxawalee da ko indi jandeer parce que bu ñu nee jandeer ñun ñëpp si lañ bokk muy Kayar muy Noto ba fi nga xamante ne mooy Thiès tund jandeer dafa yaatu kon waa jandeer sas nañ leen Ablaye Diakhaté président Ablaye Diakhaté daf leen a sas ba pare nag fenn fu ne mu teg fa tànkam jóg nañ fi dem nañ ba dem nañ jandeer dem nañ fépp fi ñu war a dem rek dem nañ fa toog ak ñoom wax leen li nga xamante ni moom lañu bëgga def léegi nag ñu ngi ci dernière phase parce que génn nañ fi ab président wax na ko dinañ fi ñëw Kayar foofu la ñu jëkk a def dem Bayax tey ñu war a dem arène national ba pare nag ñu jël drapeau yëpp tuddee ko ñi nga xamante ni mooy maire yi nga xam ne ñoo nekk ci tundu Jandeer jiital si nag ki nga xamante ni mooy suñu maire ñun muy euh, Alioune Ndoye Gaz di ko lancer appel nag euh, di wax ne euh, monsieur le maire Ablaye président Ablaye dafa la sas te am na loo xamante ne nag waxi biir néeg parce que combat bi du combat bu ndaw combat bi mënoon nañ ko tuddee ki nga xam premier ministre wala ñu ko président assemblée kii assemblée nationale wala ñu tuddee ko sax président kon buñ ko ko ko bu la mais tuddee wuñ ko ko dañ ko tuddee de Kayar municipal, mairie nag équipe municipale bépp la kon ñu ngi woo ñi nga xamante ne ñoo mairie bi ñi nga bureau municipal bu nañu taxaw ci bés bi xam ne bés bi seen bés la waaw te dañoo war a ñëw arène nationale wane fa loo xamante ne lu rëy lay doon loolu lañ si jublu euh, di lancer appel tamit ñi nga xamante ne mooy tund yi parce que tey bu ñu nee Kayar waxuma rek structure bi mais tey seen champion war ci bëre muy ki nga xamante ne mooy jamteer yi kon foofu mobilisation bi am nañ ci yaakaar mais côté mairie bi la ñuy wax bu ñu fa jógee ñëw Kërëb Ndoy fi nga xamante foofu lañ dëkk ñu ne nañu ñëw adhéré si li nga xamante ne mooy Jandeer production parce que Diender production luy dem la te luy dem ñep dañ ci wara tek loxo di lancer appel jeune ñep di kontaan ci jeunes yi comme ñi nga xamanteni ñoy boy booy nga xamanteni ñoy ñoo yor wàllu organisation euh, ci njital babakar di len jaajëfal ñep di wax ñu gën mobiliser parce que mbir mi ñew na ba pare d'accord ñuy jublu li nga xamanteni moy tabaski parce que tabaski oblige mais après tabaski 20 quelques jours moy des ci walu promotion bi li ñu war a yëpp wax yëpp mënuñu ko wax fi dinañ ñëwaat wax yu gën bari mais dal ñu fatilé askan wi. tund jandeer ak fi nga xamante ne mooy Kayar mooy ko combat bi le 23 juillet la te vingt 23 juillet ñëw na ba pare kon ñëpp nañu mobiliser ñu ànd ak Ablaye Diakhaté dem toj fi nga xamante ne mooy arène def fa loo xamante ni première rentrée Diender Production ñu def anal boo xamante ne ça restera merci beaucoup